ma fekk fi sama sœur yoo xam ni dama yàgg di liggéey ak ñoom ñu gunge ma ça presque vingt ans ma nekkandoo ak ñoom au niveau de l'AFP ñu liggéey boobu temps mënuñu leen yorewuñu leen xamuñu lenn ñu àndandoo ak ñoom mosuñu tàyyi ñu newoon ak tey jii nañu ñëw doole leen tuuti ñu def seen groupement parce que yoon woowu la ñu président Macky Sall moom la ñu won dans le cadre du plan Sénégal émergent bi nga que les day jeunes et des familles pour l'autonomisation des femmes et pour le renforcement des femmes C'est ce que nous ñu ñëw fii Thiès fii Cité Lamy jox kat mais yoon gis rek day am francs nous tijji un groupement ñom seen doole bop chaque mois dina ñew rencontrer wu am luñu doñtal doncal seen bopp donc yaakar na ni lolu te buñuy def le tirage ben nombre bu ndaw ma ngay wax femmes yi ngeen gis fi yëpp dañoo bot ay mbotay nek des responsables si seen base tay dama len newon nak nañ ko doori fi cité lami fi sama kër ñom responsable yu ñew chaque mois dañuy dem si gox goxani ñoom lañ fay fekk ne bu boobaa ñoom dañuy convoquer seen base ñun responsable yi ñu fekk leen foofu donc loolu moo waral tey ji suñu réunion bi suñu rendez-vous li jiitu loolu parce que dama dem ba mujj yeddaat sama bopp parce que booy ànd doog ay nit ñu yàgg di politique di leen woo ñu bàyyi seeni soxla bu ñu amee paas ñëw bu ñu yorewulee paas ñu dox ñëw ma dem ndax si terre ngay amé de l'expérience ma xamni kat si politique dafa wara am lenen lu ko lal c'est pas nak de l'opportunisme mais nit ku bu la nekkalee ni si naaj dang koy nekkal ni si ker ma dem bané ne kat man cette politique bi may def naa bolé politique de développement lepp luma am bokk ko ñi nga xamni ni ba légui ma ngi nekk ak ñom di liggéey ak ñom lool mo waral ñu créer benn groupement groupement bi ñu tous que le réseau des femmes actives pour le développement Lo xam c'est en marge des activités politiques yi ma yore dooleel femmes yi seen base seeni groupement ba seen xel mëna dal ba boo leen woowee du ñu nekk ni di wax ni la topoto toppatoo sama kër ña ngay jaay ci marché bi ña ngay def tontine

say mbokk journaliste yu bari critiqué woon nañ ma ku nekk nag ni sa nature ku nekk si jikko ñi ma xam dañuy dem ni ba di ma ne Yaya yow mënuloo politique doo politique bu dee li ngay def wooteel daayira parce que li ngay def ni du politique dinaa def des actions dinaa am lu may def mais man lépp lu may def dama koy def ta yàlla tax

damay wax loy jox comme ñu vers la campagne ñu bëgg di li ñuy def bëgg vers les présidentielles ni premier tour Inshallah, le président Macky Sall mu gagner au premier tour parce que projet yi mu door dafa Ami yi mu dafa bari donc il faut mu am deuxième mandat pour les chantiers en cours mu mën ko yeggale au bénéfice des populations sénégalaises. jigéen ñi lu may xaar ci ñoom ñu gën a takku ñu gën a xam seen place ñu gën a fullaal li ñuy def parce que képp ku falu rek jigéen moo la fal ñu am fulla li ñuy def fulla bi nga xam ne moom laa gis ci ñoom. man lepp lu may def dama koy def par engagement lepp lu may def dama koy def par conviction donc ñom li ñu and ak man and ko président Macky Sall mu nek par engagement par conviction lepp lu len ci fekk bu xamni yalla mo len ko wërsegal parce que man gëmuma di politique ndax lañ lay jox gëmuma di politique ndax lañ la dik dama gëm di politique pour la population sénégalaise dama gëm di politique pour l'intérêt du Sénégal donc ma di leen ñaax ci loolu ñu àndandoo ñu liggéey ba deuxième mandat nous, ñu bii ñuy pour le président pour le président Macky Sall ñu am ko ci jàmm programme yi président d'or Le deuxième mandat nous avons may mu égalé ko C'est vrai qu'on dit que l'État c'est la continuité mais ki commencé ay programme am xam li mu ci jublu xam fu mu toll bu ko yeggalee lu baax rek lay doon pour le peuple Sénégal. li xew Ndar lu metti la surtout yaay kuy yaay rek boo déggee un étudiant di jàng bursam mu tardé muy manifester ba ba ñu tiire ko bal ba mu ñàkk ci viiwam kuy sénégalais rek en commençant par le président Macky donc vraiment lu ñu la lumière sera faite et les mesures idoines pour que ça ne se répète plus que plus jamais cela Inch'Allah, président Macky Sall dina pour nous savoir les problèmes des étudiants les problèmes du monde universitaire. Je sais que c'est c'est frère là ñoo bokk beaucoup man li ma leen di wax man si politique dama am ay valeur am de l'éthique politique du ma si xulóog nit du ma si ŋaayoog nit si nit parce que pour nekk li ma la wax sa engagement sa conviction mais quel que soit le bord où tu te situes def ko ni ko yàlla politique mais depuis notre prophète le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dama def politique man politique jàppewuma ko lu dul ngay sonn ngir si askan lu dul ngay sonn ngir néew gi doole yi lu dul la nga am nga bokk kook ñi nga xam ne ñoo tax nga féete kanam dafa war a ànd ak ay valeur man politique duma ci fen duma ci sos duma ci yàq der bu dëgg ñëwee fekk ma daanu sama kaw ak ñama àndal damay reconnaître donc Idriss Seck mon frère je ne parce que je me le refuse moi dans ce nos politique je ma nit je ma nit je ma nit parce que je ay valeur ma yare damay wax li je gëm wax je je gis wax je je xam Mom na Je nek ni nii na fu fu rek def récupération man façon de faire cette politique là il faut pas de du nihilisme même sa adversaire bu defee lu baax neel gàcce ngaalaama su defee lu dul noonu Sénégal ñoo ko bokk ku ne dugal ci sa loxo par des critiques constructives man loolu laa gëm ci politique. maa ngi tudd Rokhaya Sow di présidente groupement bi commune ouest ndaje mi tey dafa am formation bu ñu defoon mu joge nag ci ndimbalu Yaya ministre du commerce Alioune Sarr mayoon ko ko mu ñaanoon ko ko pour indil ko ay jigéenam bi ñu defee formation bi yaayaa xam ne bu nu bàyyee noonu rek li nu jàngoon mën na noo réer noonu pour mu dajale ñu pour ñu mën a continuer li nu jàngoon ñu continuer di ko pratiquer mu mayoon ñu 500000 500000 boobu la ñu fi teewoon tey ngir tas ko séddale ko jigéen ñi. maanaam 500000 bi dañu ko bëgg a jël si sunu biir di ko tourner maanaam pour mu oyof ba jigéen ju nekk man see gis boppam. dañu koy def weer wu dee wu ne kenn ku si nekk am loo xam ne dañ koy dugal épargne loolu moo tax ñu wut ay carnet bu ko defee di épargne di liggéey di dugal si biir bu ñu toogee ba mu am ak nun nooy seet nan la ko bëgg rek ba nga xam ne dinañ si mun a gis suñu bopp ñu door koo tas kenn ku si nekk am loo si mën a dimbali ko. kontaan nañu torop si moom parce que vraiment moom bi mu ñëwee ba léegi xiiruñu si loo xam ne si dem ak dikk si liggéey rek la ñuy encouragé kenn ku si nekk programme bi mu tëral mooy. lii groupe la boo xamante ne ay responsable ñoo fi daje mais bu ñu paree tournée lay defaat nee na si gox-goxaat yi responsable bu nekk mu fekk la sa gox dooleel la yàq sa mbooloo ngir kenn ku si nekk mën a gis sa bopp si li nga xamante ne moom lay yëngu. 51 groupement ñoo fi daje muy 51 responsable yoo xam ne kenn ku si nekk da ngaa boot mbooloo. première formation bi ñu def ñu ngi ko def si transformation fruits ak légumes. waaw ah, si loolu lañ def defar nañu ay siro confiture marmarade loolu lañ defagul. li ñuy xaar si moom mooy mu jàppale ko si lii parce que tam def na kemtalaay kàttanam mais des na bu baax a baax a baax ñuy xaar président Macky sàll que lii nañu fekkisee jàppale yaayaa yi bu baax parce que tamit mu ngi si tànk jàppale ko lool. parce que bari na fi ay responsable yoo xam ne dañoo meroon sax mais lii yaayaa def nii moo leen yëkkatiwaat ba tax tey jii ñu nekkaat en activité si jàppale Benno Bokk Yaakaar benn si man mi taxaw. président xanaa mu dooleel ñu. parce que tam ñun jigéen ñi. soxla nañu ay financement lool. am na financement yu fi jaar bu yàggul Cees mais Benno Bokk Yaakaar gisuñu si seen bopp des na lool ñu bëgg nag mu xam ne Cees responsable yi Benno Bokk Yaakaar yi soxla nañu bi yoon ku leen jàppale lool parce que financement yi passé gisuñu si suñu bopp. suñu taxawaay nag mooy. bu jàppale googu weesoo ñu fexé nak jàppale ko lol ba fal ko ci premier tour ndax deuxième tour moom ñu ko dégg du ñu arranger